asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim kaanu ida leylu arxa zitra saalaken waamu siraxal li ixyaai li junnaati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di jiital ci nuyoo boobu ak siyaare bi cheikh mohamadul muntaqa alxalifatul am li taifatil muridiya yal na ko suñu borom yàggal lool tamay ko ak wér ak mboolem njabootu cheikhul xadim ak ñun taalibe yëpp di siyaar ak a ñaanal sëriñ Habibu Mbakke sëriñ Modou Habib Mbacke xalifab Cheikh Abdoulahi borom dër bi di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool tamit ko ak wér ak mbooleem njabootu sëriñ Abdou gépp di ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Daaru Rahman suñu borom dolli ko ay leer te taas ñu ci barkeem di ñëw ak yéen tey di fàttaliku eh, góor yàlla gi nga xam ne moo mooy taw gannaaw géej gi ci góor di sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi wax ne ne soxna Aysatu Gaawaan moo mag ci ñi sëñ bi am ñëpp ci góor ak jigéen ci ginnaaw géej gi waaye nag moom moo ci topp ci góor bu dee góor sëñ Ibrahima Cheikh Abdoulahi Mbakke di doomi sëriñ bi ak soxna Fatimatu al Kubra mu jóge woon Mauritanie mi ngi gane àdduna ci barab bu ñuy wax ci yeen Jolof bi mu ganee àdduna sëriñ bi dafa jël aw kayit bind ci Abdoulahi jox ko am ñu ne ñaari wax am na ci am ñu ne sëñ Maxtaar Bintaloo am ñu ne sëñ am sutu jaxate waaye nag sëñ am sutu jaxate moo gën a siiw ndax am na ñu wax ne sëñ Cheikh Abdou Rahman sëñ am sutu jaxate moo ko tudd te ba mu koy tudd dafa wax lii de mooy lu yéeme xanaa tudd baay tudd doom am na ñu la kon loolu mooy tegtal ne sëñ am sutu moo ko tudd bi nga xamee ne yàlla dogal na mu gën a àdduna ci atum 1900 sept wala huit sëñ bi amoon na amoon na ci mbégte lool lool lool lool lool ba mag ñu bari sëñ bi di leen ko seeral ak ay daraja yu mu indaale bi mu matee dal jàng sëriñ bi moo ko dalalal boppam dal di koy yóbbu ca sëriñ daam Abdourahman Lo mu jàng fa alxuraan ba mokkal dal di dem njaareem bind ab kaamil bu rafet dal di ànd ak sëñ mbàkki kat ni buso waajur sëñ am di buso mii di nodd yaay sëñ Abdou Khadir daal di koy jébbal sëriñ bi mu bég ca lool daal di koy daal di ko ciy sant gërëm ko ca ñaanal ko ca gannaaw ba la ko sëriñ bi yabal ca maam Cerno Daarul Muxti ngir mu jànge fa xam-xam nañ ne jamono yi sëñ bi yabal ci maam Cerno ngir mu jànge boo fekkoon ne maam Cerno bàyyee jàngale ndax ak mage waaye pëstéefam tax na bi sëñ bi joxee ndigal sëñ Ibrahima mu ñëw xalaat sëñ Abdou Khoudous gi nga xam ne ñoom la maasel dañ daa wax ne euh, dañoo bëggoon maam Thierno jàngal leen lool te mënuñu ko am booba waaye bi sëñ bi ñëwee rek maam Thierno commencé jàngale ñu bëgg maam Thierno mu ne leen ah na ngeen ñaan fii ak doomi sëñ Tuubaa ji mi ngi fi dem dana continuer waaye sëñ Abdou yeggu fa ba mu demee rek maam Thierno daa daa daa arrêté waat ngir mu tàmbali fa jàng mu xam-xam jàng na fa ab diir dellusiwaat ci sëriñ bi ne ko. dama bëgg nekk ci yow sëñ bi ne ko dama bëgg a jàng ci yow sëñ bi ne ko amatuma jotug jàngale waaye toogal déglu ma ci la ko sëñ bi jël di ko tërbiyaal boppam ba mel ni mu bëgg daana nettali ne moom sëñ Ibrahima daana tëjoog moom lu yàgg te du génn lu may waxtu julli ci biir loolu daana daan daan daana ko defloo yu bari di def ci moom ay mbir nee nañu sax bi mu génnee euh, maanaam léeg-léeg sëñ bi bu masaa génn jëm ji de soppiku moom sëñ bi bu ñu lu waral soppiku gi maanaam sa yaram bi ni mel nag mu ne damaa nekk koo xam ne dadu nit taman may nit nga xam ne moom moom rek si ni ki Cheikh Mouhamadul Bachir ni mu amee tawféex yi moom rek moo dëkkoon ci biir kër gi waaye moom miit moom sëñ Ibrahima moom rek ci liñ axam ci histoire moom la sëñ bi daa tëjuwaale waa xam ne da ko daa tëjaale biir sëñ Iblaahi ak defaroom sëñ bi eh, am na ku mag ñu ko doon misaal bay tudd eh, bay yu di wax ne tarbiyatul ayyi lati laysa yamut laysat ka tarbiyati xay xat yamut di leen wane samay doom yàlla ma leen yaral ba ñu mel na ma bëgg am na bis sëriñ bi ne ko fagul naa la moom sëñ Iblaahi ne maay sa waajuru góor di sa waajur wu jigéen di sa nijaay ah, maanaam ne ko may sa may sa baay di sa yaay di sa nijaay sëriñ bi it waxoon na sëñ Balla Fally Dieng ak sëñ Issa Dieng ne leen dee leen ma saytul mbiram ci noonu la sax njaareem ba ni sëriñ bi ñëwee Touba mosula mosula jóge njaareem daana wax ne ndekete man maa ngi door a xam ne ndekk bëgguma woon njaareem sëñ bi laa bëgg ndax fi mu ne ba sëñ bi ne njaareem mënu woon fanaan genn guddi fenn fu mu njaareem te léegi mënatu ma fanaan génn guddi kon xam naa ne kon bëgguma njëriñ waaye sëñ bi laa bëgg daal di ñëw tubaa nee nañu sëñ Habibu Mbàkke daana ko fekk si di ko jàngal eh, bi mu nekkee Tuubaa ba ci mujjug 1929 ci la sanc Daaru Rahmaan ba ma ko sancee la fa yóbbu Serigne Cheikh bu su Fatikan ni muy boroom xam-xam bu mag mu di ko jàngal ak di jàngalaale waa dëkk ba loolu eh, manes na cee jànge ne xam-xam ndekk di weesu teyit nit waru ko weesu la boppam xam ngeen ne dem ba sañ ci ay dëkk wut ku lay jàngal loolu fonk xam-xam foofu la mën a yem eh, di jàngale waa dëkk ba sëriñ bi ci noonu la sax ba mujj peeg fànni xam-xam yu bari lu ci mel ne xulum sharia ak taarix ak juxraaf niroom ak sëñ bi nag moom jéggi woon na dayo comme ni ko siñ Moussa ko waxee ci xarnu bi allahum moo di jenn waay moo jàpp doom def ko ne bàyyi ñu bokk benn taxawaay ëpp doodi ëpp doodi bambam xarnu bi soo ko gisee muy saama ndaay Cheikh Bamba niroo ñoo niroo jotaay niroo sawaay niroo yaram niroo niroo niroo deret ci xarnu bi niroo doxin niroo waxin xam nga mu bayu ci dara kon niroo jëm ak meloog defin bu ree nga waat ne du keneen Bamba ñëwaat ci xarnu bi moo euh, moo doon tab ga ca moom ndax dañoo wax ne sëñ bi ku tabe la moo doon jàmbaar gi ci moom seen bàyyi séddale jikkoom séddiku lii ci xam ne bi baatin ba raw na shaayiram day gaaw ba soppe ay mbiram mbir ma ca bàyyi may mbiram mu yor jaloore xarnu bi mu ngi jànge mi ngi njëkk a baylu ab toolam ndax liggéeykat bu mag la woon mënees na euh, jël référence ci moom ci ni mu fonke woon liggéey ab toolam bu njëkk caatum 1927 sancoon na ca tiib ci wetu sëñ Basiiru sancoon na ca wetu bogo Tuubaa bogo Fallu sancoon na it ci dëkk bu ñuy wax Saajo ca wetu ceebi làmbaay ak Daaru Raxmaan gi ci gën a siiw moom Daaru Raxmaan mi mi mi nga tàmbali tàmbalee woon ci mayum nawet lu ci mel ne gerteeg dugub ak yooyu ba mujj mu yokk ca mayum noor lu ci mel ne ay lujum ak furuweeg yu mel noonu ba mujj euh, bokk na ca yafa daan ñore màndireek pàppaaya ak lu mel ne raisin ak tiir nga xam ne maanaam liggéeykat liggéeykat bi mu doonoon jege woon na dayoo ba wax nañ ne mas naa ni éviter nit nit añ mu ñëw bi ñuy xewlu mu wax ko ki mu doon jëfandikoo ne ko li lépp loo gis ci bool bi de fii la ñore ba mu des su ma juumut xorom si la ko wax yaakaar naa loo gis rek ci bool bi fii la jóge ci sama tool bi la jóge muy jën yépp yëpp ah, lu mel ne rejec tàndar ma màngoog ah, ba mu demee ba ab diir la ca yokk mbayum ceeb ba daana ca bay loo xam ne sax dañ ko daa santaane ah, kon daal moom bay maanaam liggéeykat bu mag mag la woon ba mujj ba mu demee ba ca mujj ga la xëj la xëttale sayaan ya fa nekkoon ba mujj mu mel ni ak dex mu def ci ay jën ba sax lu masaa luñ masaa soxla ci ay jën foofu la daa ju foofu lañ ko daa jëlee waaye loolu nag mel na ne du say kese ba itam da caa laxasoo ndax wax nañ ne ba say du demee ak ba géej ga ba ba dex ga demee sorewuñ nekkoon na ku daan eh, ku daan yëngu ci commerce ba sax ubbi woon na boutique boo xam ne daw ca fay daa daa woyofal njëg gi ngir lu waay soxla mën ko fa wut si ci jamono jooja jëndoon na juróom-ñaari kër ci bawal yoo xam ne yëpp titre foncier la woon jëndoon na it benn kër ci Kaolack daana yëngu ci ci wàllum sàmm ndax amoon na koo xam ne euh, ci loolu la ko féetle woon doonoon na it ab yarkat bu mag boo xam ne yar na ñu bari ñu tasaaroo ci réew mi bokk na ci sëñ Abdoulaye Dieng moom sëñ Balla Fally Dieng ak sëñ Abdoulaye Mbaye Kéré moom sëñ Makhtar Mbaye Kéré ak sëñ Ousmane Guèye moom sëñ Modou Guèye jëmooy ak sëñ Malick Fall ak sëñ Mbay Jaxate ak ak Baye Seck ak sëñ Diouf ay jikkoom nekkoon na euh, ku ragal yàlla ku maandu lool doylu woon lool te daa ko digle bëggoon lool ab wéetaay silwiise woon lool bëggoon lool ku silwiise bañoon lool kuy dugg ci lu yoonam nekkul di dimbalee lool amoon yërmaande lool tayit du joxe lu amul njariñ comme ni ko sëñ Moussa Ka waxee ku dem këram mu wodd la may la alfun kafay sëy eh, bu siyaaresee neex na neex na bàmba ku yaatu la woon taweef lool te bañ lool loxoy neen loolu moom da ko nuroon sëriñ bi kooku masaroom boo defee loxoy neen rek dana liggéeyloo te it bëgg jàmbaar lool doonoon ko am fulla te bañ ko doyadi te bari kersa lool fonkoon jaamu yàlla lool doonoon ku mën a eh, ku lewet comme ni ko sëñ Moussa ko waxee ku dem këram eh, dalay waar moo doy waar muy dullaahi war nay seeti dër ba sëñ bi daana wax ne Euh, sëriñ euh, gannaaw euh, doona na it ku bëgg seexul xadim daana wax ne comme ni ma ko waxee woon léegi man daal seetlu naa ne njaareem ni ma bëggee woon njaareem ci jamono sëñ bi melatul noonu kon sëñ bi laa bëggoon daana wax ne it sëñ bi mas na koo wax bis ne ko Abdullahi dénk naa la laahi nee na booba la sama mbir laa xam ne sama mbir dara du ca yàqu waaw Abdullahi dénk naa la laahi moo tax sama mbir neen dara yàqu ca mu nekkoon koo xam ne euh, waykat yu bari way nañ ci moom ku mel ne euh, sëñ Mor Kayre ne ci moom sëñ Moussa Ka ay ay bayit yu wuute yoo xam ne def na ko ci moom nekkoon na it ku daan ku ku euh, ku dal lool ñeme woon coono lool mënoon a muñ am na bis mu woolu taalibe yi ne leen di leen dénk ne leen def leen muñ muy seen ba muy seen ndey def jaamu yàlla muy seen baay da ko ninkaane booba wax ne def leen muñ muy seen ndey def jaamu yàlla muy seen baay euh, def niiwi bor muy seen mag daana wax itam ne lépp lu seen njariñ nekk na ngeen fexe ba bañ ca kumpa xam nga dañ kumpa ak bañ kumpa bokkut dañ kumpa yàlla ko yàlla ko def waaye bañ kumpa la la wax lépp lu seen njariñ nekk fexe leen ba bañ ca kumpa lépp lu seen njariñ nekkul na ngeen nangeen eh, ngeen ci ñeme kumpa eh, am nay bayit yu am solo yoo xam ne sëñ Mor Kayre defoon na ko ci moom yu bari ba mu demee ba ci fukki fan ak juróom ci weeru rajab mu wuyu ji boromam mooy bis bi ñu koy fàttalikoo ca Daaru Rahman ci 1960 eh, ñu denc ko fii ci Touba ci teewaayu njabootu sëriñ bi ak kili ay kilifa yoon yu bari doonoon. tiis wu metti woo xam ne ndax wax nañ ne nur gi nuroon sëñ bi taxoon na ñi mosoon a ku mosa na mu sëñ bi rek da ngay dem seeti ko ndax waxoon ne nur waxoon waxoon nañ ne nuroon na sëñ bi nuru goo xam ne jamono yi sëñ bi nekk njaareem sëñ bi di fa ne léegi daana nekk ci sàkket boo xam ne sëñ bi day day wax nga yaakaar ne sëñ bi wax waaw wala wala mu jékki-jékki woote nga yaakaar ne sëñ bi woote nuróom gi eggoon na foofu sëñ bi it bàyyi woon ko xel lool tudde ko ay doom ñu ci bari am na ñoo xam ne sax xamuñ ne kii kii lañ ko tuddee waaye bokk na ci sëñ Abdou Aziz Baara mu sëñ Baara wax nañu moom lañ ko tuddee wax nañ ko sëñ Abdou Kouma Suuna wax nañu moom lañ ko tuddee kon sëñ Baara tuddee na ko ñaari doom sëñ Abdou Akim mii mu sëñ Basiir wax nañu moom lañ ko tuddee sëñ Abdou Gassane mu sëñ Mourtala wax nañu moom lañ ko tuddee ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ci njabootu sëriñ bi kon ku amoon euh, relation ak njabootu sëñ bi la. Euh, kon lii lañ leen andiloon ci Cheikh Abdou Mbacké yàlla na ko suñu borom dolli ay leer tataan ci barkeem sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo ko wutu woon 1960 moom it ñu def taxaw seetlu tuuti ci moom muy nekkoon jàmbaar joo xam ne liggéeykat bu mag sëriñ Cheikh nekkoon ko koo xam ne manees naa roye ci moom moom sëriñ Cheikh Darou Rahmane manees naa roye ci moom ak njub manee manees roye ci moom ci jàpp jàpp sa ñaamur mën a roye ci moom ak dal mën a roye ci moom ak dëddu àdduna mën a royee ci moom ak doylu surtout doylu doylu moom manees na ko royee ci sëñ ndax dama tëkkatu at yi ñu wax waaye am nañu ñu teewlu ay at yoo xam ne wax na ne génn ko diggante Touba ak Darou Rahman nga xam ne déwu fi Ndakaaru dému fi fenn ci réew génn réew génn réew moom dama ko jëlale wax na ni benn yoon la ko mas a def muy bi muy aji Màkka ñaareel bi mooy bi mu wujjee moom te yàlla jële ko foofa kon ku néewoon ab tànk la te te liggéey lu bari euh, liggéey lu baree baree baree bare bàyyi fi ay liggéey yoo xam ne manees na cee jëriñu bari dina tukki turam du dootu fi des doo kenn dootu fàtte muy jàmbaar lool kii ko wuti itam di jàmbaar moom it nekk koo xam ne ñi ko xam ne daa nañu wax ne sëriñ Chouaïb Mbacké daana wax ne sëriñ Modou Habib kaddu barkeel la yor ndax dañoo wax ne sëriñ Abdoulaye mooy ki gën a nuru sëñ bi kaddu sëriñ Modou Habib wax nañ ne day nuru sëñ sëñ Abdoulaye kaddu lool am na ñu ne sëñ sooy bi daana wax ne Modou Habib de kaddu barkeel la yor kaddu mag la yor kon yàlla na fi yàlla bàyyi te yàggal ko fi ba mu mottali yéene sëñ Cheikh yëpp ak mbooleem njaboot ko sëñ bi tàmbalee ko ci moom ba si mu Moustapha Saïd mi mi caatam yàlla nañ suñu borom yàggal te may leen ak wér wasalaamu aleykum wa rahmatullah kon lii leen leen andi loon an leen ko seen site bii di Ndindy Actu ak sëñ Assane wasalaamu aleykum wa wa barakaatu.